shit. léegi oh dafa am ku ma message woon démb mu ne Mo Gates dafay toroxal benn jigéen mu ne ma dinaa la jox preuve yi donc fi may laay fay nii di wax rek kooku yónnee ma preuve mais dafa daw suma yaram quoi sérieusement sérieusement ndaw filmé fi hôpitaux à hôpital affaire yoy mais bon dinaa ci wax donc euh, man défenseur jigéen la tu yéen ñi nekk ci suma groupe whatsapp bi dinaa leen yónnee preuve yi ngeen gis ko yéen ñi nekk ci groupe whatsapp bi ngeen xam li may wax yéen ñi nekk ci suma groupe bi yónnee naa leen preuve yëpp foofu ci groupe whatsapp bi maanaam li ma gis nii ba su ma rongañ tuur ngeen xoolal ko seen bopp <coughs> yónnee naa ko ci groupe bi yéen ñëpp ngeen gis ko ngeen xam ngeen xam lan moo ma jooyloo te yàq na suma suma suma suma suma live bi yëpp mais yéen ñi nekk ci groupe bi mu ngi noonu oh mais ça va aller ah moo gës bu ma gëstoo ba xam ne li yaa ko def làmp yi dina tàkk de photo yi ñu yónnee ma nii Bude dee yaa ko def oh, làmp yi dina tàkk de yéen ñi ci groupe bi gis ngeen ko Aïssa Thiam yaa ngi ci groupe bi gis nga ko man lépp lu ma leen di wax rek ci groupe bi laa koy yónnee comme preuve donc gisal ngeen seen bopp li ma gis dafa am ay jigéen ak ay góor yoo xam ne demuñ pour liggéey mu am góor goo xam ne dafa dem ba France jàpp fa jabari jàmbur te dee ko ci hôtel jëkkër ji wax ma ko ma woo góor gi mu ne jabar jee ko topp maanaam jigéen jee ko topp ma wax ak jigéen ji muy jooy ma ne jëkkëram na ko bàyyi te góor googu dafay toog ci télé di wax honorable himself. lan nga bind ne dama ne. Mhm. hello you getting yaa ngi maa dégg bu baax. maa dégg. waa luy luy luy kaabi nag luy kaabi. kaabi laa bëgg a ma toj yaa Nohara. waaw kan iya, kan man la am serious yow da nga bind. waaw. nga ya ne duul rek ana preuve loolu nga bind. waaw ana preuve preuve laa bëgg xam loolu moo tax ma wax loolu. non xaaral xaaral laajte ak wax du benn. preuve laa nekk di laaj. waaw xaaral defal naa waaw man. waaw yàgg naa laa topp yàgg ya naa laa follow you know so most of your. cars and topics are a bit sophisticated and confusing. So I want to see a proof relating to mortgage. parce que Mogate sama mbokk la sama deret Lola loolu laa